ginnaaw ba ñu joxee euh, euh, euh, li nga xamante ni mooy ballon d'or wala sax li nga xamante ni mooy meilleur gardien du monde mu doon ay trophée yoo xamante ni dañuy xool joueur yi gën a xarañ wala sax ñi nga xamante ni ñooy gardien de but yu gën a xarañ waaye nag kii di Lionel Messi moom moo jël li nga xamante ni mooy ballon d'or waaye tamit góolu Paris Saint-Germain boobu di international italien di wuyoo si turu Donnarumma moom rek moo jël li nga xamante ni mooy meilleur gardien du monde bu année 2021 mu doon loo xamante ni ñu bëri eh, ñu ngi si yëy di yàbbi comme ku si mel ni eh, Habib Beye moom nag ginnaaw ba mu génnee foofee ca eh, canal ndaxte ab consultant la fa moom ni di entraîneur bu Red Star bu championnat France waaye deuxième division moom rek bi nga xamante ni loolu la ñuy joxe ballon d'or bi rek def waaye tamit ki nga xamante ni mooy Patrick Evra ginnaaw ba Habib Beye génnee moom Patrick Evra génn rek wax li nga xamante ni mooy scandale mu doon crier au scandale après Habib Beye waaye nag bañ ko joxe li nga xamante ni mooy meilleur gardien du monde moom Keita nekkoon fi euh, international euh, français moom rek nekk foon nekkoon fi tamit euh, défenseur bu man sa Manchester United nee na li nga xamante ni mooy Coupe d'Afrique des Nations ñooñu waa tubaab bi rek ñoom respecté wuñ ko xamuñu sax compétition boobu ndaxte am na entre entraîneur bu fi génnoon naan ko lii rek ab petit tournoi la bu nekk foofee ca Afrique mu doon loo xamante ni africain yi ñu ngi koy naqarlu waaye Patrick Evra moom rek nee na li nga xamante ni mooy meilleur gardien du monde warul nekk kenn ku dul kii di international sénégalais boobu rek du wuyu si turu Edouard Mendy nee na bu ñu ko joxee li nga xamante ni mooy Donnarumma dañoo def li nga xamante ni daf leen neex waaye nag kii di man warul nekk meilleur gardien de but si kanamu kii di international sénégalais boobu rek du si turu Edouard Mendy ndaxte Edouard euh, Mendy rek mu doon euh, li nga xamante ni mooy euh, deuxième place si meilleur gardien du monde moom Patrick Evra naqaru na ko trop nee na li boo xamante ni day xew si football waaye nag Patrick Evra moom rek nee na li nga xamante ni mooy nit ku ñuul bi moom ñoom rek ñoom rek respecté wuñ ko ndaxte boo nekkee nit ku ñuul doo mën a jël dara si li nga xamante ni mooy compétition mondiale boobee rek ñuy def si wàllu football nee na nag Patrick Evra moom nee na ki nga xamante ni mooy Edouard Mendy nekkul lu dul africain ak sénégalais loolee sax moo tax jëlul li nga xamante mooy mooy meilleur di du monde waaye nag mu nekkoon tubaab moom rek moo doon meilleur gardien du monde